Chronique People. alaikum équipe matinale dal len ak jamm sen revue de presse people lu bés bi tay nak dañuy doore ak ki nga xamné moy Adele ak Beyoncé ñom ñaar nak di ñaari ndaanaan fas yéene nak def ben single bo xamante ni dina bok ci sen prochain album bu nga xamante ne On République c'est bien possible si l'on en croit à rien Tider chanteur de On République Beyoncé et Adele vont chanter sur un nouveau titre du groupe inclus sur le prochain album et ce n'est pas tout puisqu'une autre superstar de faire une apparition. On a une chanson avec Adele et Beyoncé et Chris Martin au piano, mais je ne veux pas en parler, a-t-il expliqué lors d'une interview pour la radio Z100 New York après le festival Global Citizen. À quand la sortie Ni Adele, ni Beyoncé, ni Chris Martin n'ont pour le moment évoqué leurs apparitions sur le successeur de Oh My My, le quatrième album de Home Republic sorti en 2016. Mais Tedder a également déclaré déclaré qu'il sortirait les titres de ce nouvel opus les uns après les autres. Et eh oui, Beyoncé ak Adele loolu dal, dara du ko wait and see ñu ñëw nak ci ki nga xam moy West annonce la sortie d'un documentaire sur son nouvel album gannaaw nak bamu mu annoncé sortie album bi nga xamanteni mom la warona a Mom nak da ko annulé ndax dal limu xamlé rek moy Limu wara ñëk guenné moi moy documentaire bi nga xamanteni da fay dafay wax ci albumam bu bees bi war guen documentaire commentaire ak album Wow, waaw kay fii la bët yam nak nak album bi mu ngi Jésus is king mhm, is king alléluia pour vendredi dernier le rappeur semble avoir changé son fusil d'épaule wow momdal dal documentaire b dina génn ba pare album bi ñu soog cee ñam lu bees tàkk lay ñu ci artiste nigérian bi di Davido wow gannaaw nak ba ñëpp xamé ni que mom ab jambar la te it ndaanaan la ca la muy def ba wa dëkkam sax nak dal ko koy nangul mu teuf fofu dem ci amerique rek ñu nangul ko li nga xamanteni ni moy ndaanaan bi nga xamni mom la doon waye mom nak di artiste nigérian bi annoncé nañ ko nak ci benn film bo xamanteni ni dana am nak fële ci États-Unis Manam film hollywoodien lay doon tudd nak Coming to America 2 waaw une réalisation interprétée par Eddie Murphy ana ñi xam Eddie Murphy waye xam ngeen film boobu nar na neex cappali bonbon lay doon cette information a été partagée par le comédien Michel Blackson sur son compte Twitter eh oui pour ne pas pas oublier joyeux anniversaire à Youssou Ndour longue vie santé Les loo xamante ne yaa ngi koy ñaan rek ci sa dund yàlla na la ko yàlla may ci King FM nak ñu lay souhaiter joyeux anniversaire xam naa ne nag tey moom bi du yomb ah al loo wax ci et eh oui c'est tout pour votre revue de presse people je vous donne rendez-vous à demain